3 juillet 2022 stadium Iba Mar Diop ñu ànd ci ak les arènes ñu daal di teg 3 million woote ba pat bu mag ni fair play nag la ñu woote jël làmb ji daal koy sargalee le roi des arènes Modou Xarañ Lo ci bésu le 3 juillet ñu ngi ciy xaar na képp koo xamante ne ni champion nga ndaanaan nga di dund làmb bés boobu bësu làmb la bésu aada la bésu cosaan la ndax bës bi ndey faatu aadama Jali la voix d'or moo koy way ànd ci ak keneen ki nga xamante ne ni moom mooy Maodo Faye le grand tambour dugg bi nag 2000 francs mën a dose bi 5000 francs mbokki amateur yi déglu leen bés bi yegsi na dimanche 3 juillet 2022 stadium Iba Mar Diop ñu ànd ci ak les arènes ñu daldi teg 3 millions woote ba pat bu mag ni fair play nag la ñu jël làmb ji daal di koy sargalee le roi des arènes Modou Xarañ Lo ci bésu le 3 juillet ñu ngi ciy xaar na képp koo xamante ne ni champion nga ndaanaan nga di dund làmb bës boobu bësu làmb la bésu aada la bésu cosaan la ndax bës bi nday faatu aadama Jali la voix d'or moo koy way ànd ci ak keneen ki nga xamante ne ni moom mooy Maodo Faye le grand tambour dugub bi nag mil francs dong la foo mën a toog loose bi 5000 francs dimanche 3 juillet 2022 stadium Iba Mar Diop ñu ànd ci ak les arènes ñu daal di teg 3 millions woote ba pat bu mag ni fair play nag la ñu jël làmb ji daal di koy sargalee le roi des moo Modou Xarañ Lo ci bésu le 3 juillet ñu ngi ciy xaar nag képp koo xamante ne ni champion nga ndaanaan nga di dund làmb bés boobu bésu làmb la bésu aada la bésu cosaan la ndax bés bi nday faatu aadama Jali la voix d'or moo koy wey ànd ci ak keneen ki nga xamante ne ni moom mooy Maodo Faye le grand tambour dugub bi nag 2000 francs dong la foo mën a bi 5000 Thank you. Bathie Sathies ak Kalou combat bi nar naa gaaw de Bathie Sathies ak Kalou ñoom ñaar ñëpp ku nekk yaa ngi ngaaloo lu xonq la nga ngaaloo kii ngaaloo lu zone Bathie moo dóor noonu dal na ko noonu jël bi baaxul waaye Bathie waaw waaw jël bi baaxul waaye Bathie waa Kalou mi lu muy maye eh waay ba Kalou mi waa jëlal lii ah Bathie Sathies ak Kalou Bathie moytul non bul jàppante bàcc xeex ba gën si yow waaw waaw bàcc dóoraatal waaw waaw waa bàcc saa kees waay kalu mi nu muy baaxul de bàcc saa kees dóoraat na bàcc saa eh, kees waay waay kalu bàcc saa kees waaw kalu kalu mi weex de. Kalu Bàcci Sa Thiès Kalu Bàcci wala nga ne Bàcci ak Kalu Bàcci Sa Thiès lu mu bëgg nii lu mu bëgg Kalu da koy ah Kalu bëreel waaye fu nga téye baax na Kalu bëreel téye nga ba mu Pa Abdou Fall dugg ci parrain bi kalu amoon na lu baax mais xale yi dañoo mokkalul bëree téye nga sañaare loxo muy anière kal kal ko wala nga songale ko wala nga xacc mu ñoo nga roof ca xabal wallaay xale yi des nañ mën a bëree kalu ak bàcc saa kees Pa Abdou Fall dugg bi kalu ak bàcc saa kalu jàppaat na ba tey kalu bàcc saa kees kalu ak bàcc saa kees bàcc mi lu mu bëgg dugal bopp bi ndax bàcc loolu wóor na boo mënta bëtt falak soone prise bul dem boo fa yàggee di nga soonu de oh tibb na ko bàcc kalu rof na ko caxabal xattar mi la am galgal xattar mi la caxabal la waa kalu mi lu ko xattar mi doog moom bàcc waaw waaw da lay daan kalu da lay daan waay waaye kalu da lay daan waay nu ko bëree kenn du ko bëree kalu waaye kalu jàngil bëree mu ngi noonu Pa Abdou bi yegsi na dimanche 3 juillet 2022 stadium Iba Mar Diop ñu ànd ci ak les arènes ñu daal di teg 3 millions woote ba pat bu mag ni fair play nag la ñu woote jël lamb ji daal di koy sargalee le roi des arènes Modou Xarañ Lo ci bésu le 3 juillet ñu ngi ciy xaar nag képp koo xamante ne ni champion nga di dund lamb bés boobu bésu lamb la bésu aada la bésu cosaan la ndax bés bi nday faatu aadama Jali la voix d'or moo koy way ànd ci ak keneen ki nga xamante ne ni moom mooy Maodo Faye le grand tambour dugg bi nag 2000 francs dong la foo mën a toog loolu. mbokki amateurs yi déglu leen. yegsi na dimanche 3 juillet 2022 stadium Iba Mar ñu ànd ci ak les arènes ñu daal teg 3 millions woote ba pat bu mag ni fair play nag la ñu woote jël làmb ji daal di koy sargalee le roi des arènes Modou Xarañ Lo ci bésu le 3 juillet ñu ngi ciy xaar na képp koo xamante ne ni champion nga ndaanaan nga di dund làmb bés boobu bésu làmb la bésu aada la bésu cosaan la ndax bés bi nday faatu aadama Jali la voix d'or moo koy way ànd ci ak keneen ki nga xamante ne ni moom mooy Maodo Faye le grand tambour dugg bi francs dong la foo mën a toog bi 5000